ndox fa vox populi nañu ñoom waa PDS daje nañu démb ak journaliste yi def seen conférence de presse fa la waxee ne bu Karim Wade bokkul ci wote présidentielle yi 2019 yi ay élection du am ci réew mi Omar bu Parti démocratique Sénégal ci jëmi boppam moo xam ne bu Macky Sall defee ay pexe Macky matematem ba raje Karim Wade ci liste yi moom Macky Sall danañu ko raje ci réew mi doonte dafay def maa tey sax du tax a